acteur politique soo defee une analyse globale je parle sous le contrôle. parce que bëgg benn même benn mu ngi dund benn mu ngi mu te leer na ni benn dundatul. wala mu ngi su sous perfusion. wala sous respira euh, respirateur. mais moi je pense que je pense que euh, Benno day dem man man man. naa ne Benno. wala buy amaat ñu tëgg leneen la recomposition de l' espace politique mënul ñàkk. c'est inévitable. parce que lii am mooy il faut que mu am après buñ paree si yëpp pierre trois mois ñoo xam ne ñoo nekk au pouvoir et ils ont déjà commencé parce que def nañu pare benn réunion pour euh, déterminer effectivement vraiment le pôle bi nga xam ne nii ñooy jiite ñooy ànd ak président mhm. donc loolu mooy ñi nekk au pouvoir di ko exercer mais il faut mu am beneen pôle pôle boo xam ne mooy le pôle de l'opposition maintenant dans combien de temps lay composé wu man pour man y a les élections législatives qui se profilent à l'horizon parce que ce qui est mooy que au mois de septembre suñu atteindre les deux ans ce qui est sûr li ma jàngat politique il faut que ñu tas assemblée bi demaat à l'assemblée demaat euh, pour élection législative maintenant nag la recomposition foofu lay gën a taxawee il faut que nit ñi xool ñan ñoo mën a ànd ñu ñëw mais moi je pense que Benno c'était une coalition pour exercer le pouvoir maintenant que loolu jeex na ku nekk day dem xooliwaat waa parti socialiste effectivement ils xoolaat seen biir xoolaat mais ñun au niveau de l'APR ñoo war a xoolaat suñu toogaay xoolaat ñi nga xam ne ni ba léegi nangu nañu ànd ak ñun ñu ànd ak ñun ñu kii mais li may ñaan li may ñaan mooy kenn bañ ci génn parce que bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne tey dañ taxaw am lu leen naqari ñu génn si loolu lépp day wàññi suñu pouvoir ba nga xam ne nii bu ëllëgee buñ taxawee duñ mat duñ mën a. parce que législative yi di ñëw c'est pas évident. mais si on continue ah. bon loolu yeggaguñu si moi je pense que en fait euh, li may ñaan daal mooy ñun ñëpp ñu àndal def kii président aussi doit mettre à l'aise les gens c'est-à-dire moom aujourd'hui dem na même bu fekkee ne euh, kii na mu teg fi koo xam ne dina convoquer les réunions du secrétariat exécutif national. dina faire vivre le parti muy am ay réunion parce que un parti pour que mu exister il faut ñuy def ay réunion des instances du parti d'accord après ñu xam naka la ak nan la ak ñan ñan la ñu ànd si loolu noonu dem il faut ñu nangu ne maintenant nous sommes dans l'opposition mais plus au pouvoir